mi ngi wax sànq ci ki nga xamante ne ni dañ ko faat ca diwaanu euh, Grand Yoff mu di bal ñii tamit ñu gis ne paaka la ñu leen faate est-ce que jotul aussi euh, ñu xoolaat li nga xamante ne nii moo di nañuy joxe autorisation de port d'armes yi waaye tamit arme blanche yi ni muy circuler ci biir réew mi. de toute façon bëri ñu ngi ci biir réew mi te amuñu benn contrôle. Mm-hmm. amuñu benn contrôle te Sénégal et service de sécurité bi doyul. service de sécurité bi doyul service de sécurité bi doyul. <laughs> li ñu fi gis ci manifestation yi nag. Hmm? mais li ñu gis ci manifestation yi nag bëri woon nañ de wala <laughs> dangaa xew loolu yow. xam nga xam nga xam nga représailles. waaw mm-hmm. représailles pour euh, mater ay manifestant yomb na yomb na trop quoi. Mm. mais assurer sécurité dëkk. gis nga Bamba sécurité physique sécuriser dëkk. ak sécurité sécurité sanitaire. Mm-hmm. yooyu dafa nekk yoo xamante ni yombul investissement la laaj. Mm-hmm. parce que tey jii yow waruloo sax waruloo sax maanaam xaar ba ba dara xew ba ñu woo la. Mm-hmm. pour nga war a mën a def sa liggéey ñi nga xam ñoo def service de sécurité. mais normalement normalement quartier bu nekk waroon na am commissaire commissariat. wala post de police. ba pare policiers yi seen wàllu bopp. non simplement que dañu waroon am ay moyens am ay oto yoo xamante ne oto yi day am day am essence en permanent ñoom ñuy ñuy ñuy ñuy def seen patrouille. Mm-hmm. ñuy def seen patrouille. Mm-hmm. di contrôler surtout guddi. Mm-hmm. waaw di contrôler. comprendre nga pour mën a sécuriser dëgg di anticiper. loolu sax def nañ ko démb ba teg ci loxo lu ëpp 200 ci ay euh, nit. waaw mais bu fekkee dañuy bàyyi ba ñu rey nit ba pare ñuy doog a def loolu. su boobaa dootul am sens. suba dara man fii damay gis nii ci circulation bi ba kii kii am euh, nu mu tuddati. Euh, embouteillage. embout non waa police yi def def montage. Ah, di gaare oto yi di contrôler. Mhm. comprendre nga mais da gis ni oto yu luxe yi rek la ñuy gaare di leen contrôler. Mhm. mais yeneen xeetu oto yoo xamante ni doo comprendre comprendre waaye ay war ngay ndeyeeg ay taxi yeeg yooyu kenn du leen contrôler comme il faut parce que lan moo tax loolu doo comprendre est-ce que yaa ngi dégg wax ji mm-hmm. mais li nga xamante ni moom mooy yoon ba nekk yoon mooy que ni sécurité moom dafa des mm-hmm. ci dëkk bi te sécurité boobu dañ ko war a renforcer mm-hmm. en en en en permanent guddi bu jotee guddi bu jotee à partir de minuit muy am muy am muy am patrouille. di am contrôle tu vois. Euh, parce que loolu du pour kii mais sécuriser doomu aadama yi la ko. sécuriser doomu aadama yi loolu fekk amul du sotti. li nga doon wax sànq ci borom immeuble yi parce que Dakar dafa nekk benn plateforme tournante au niveau de l' Afrique de l'Ouest léegi yow mun nga am sa sa sa kër immeuble R plus. nga nga nga ciy récolter ay trois millions wala 4 millions par mois normalement war nga ci mën a def war nga ko mën a sécuriser def ci ay vidéo caméra vidéo surveillance ba pare ut ñaari gardien kii bëccëg gi lay def kii guddi gi lay def xam nga kër googu booy bi dee booy bi ba fi fi ñu leen reyee. Mm-hmm. après ba leen reyee après 4 jours la ñuy doog oui découvrir découvrir mm-hmm. mais kër googu bu fekkoon ne am na gardien boo xamante ni mi ngi ci bunt bi. Mm-hmm. ñuy guddi kii bëccëg. su boobaa loolu quatre jours yi du fa àgg. Mm-hmm. quatre jours yi du fa àgg. c'est vrai xam nga si dolli aussi tamit foofu da ngay question yow naka ngay mën a amee sa doom wala sa jarbaat wala sa frère ngeen bokk dëkk nga toog quatre jours déggoo ko te woo ko téléphone sax laaj ko naa baa jàmm nga am. Mm-hmm. jàmm nga fanaanoo walla daa jàmm nga yendoo te li ci gën a doy waar aussi eh, eh, eh, boo xoolee. Mm-hmm. assassinat bi. Mhm. correspondre ak màggalu Touba yi ñu rey ñoom ñoo dem màggal yi mhm. foofu est-ce que amul benn déconnexion entre état d'esprit wu population bi ak mhm. réalité bi religion di jàngal ah dafa mel ni am na décalage bu mag est-ce que ñoom jàppuñ ni màggal gi folklore la est-ce que ñoom jàppuñ ni màggal gi xawaare la ba yow war nga mën a rey nit ba pare dem màggal te yemul ci loolu gis nañ fi kuñ fi jàpp ay ay faux ñu koy seet mu dem Touba. <laughs> oui ki waroon ngénte dem agressé multi service bi pour nee na ngénte dawul. waaw yaa ngi dégg wax ji dem rey nit parce que da ngaa war a njéet. mais est-ce que est-ce que ça va. est-ce que non est-ce que éducation est-ce que am nañ est-ce que éducation bi éducation nationale est-ce que am nañ man dama yàgg dénoncé ni ñun amuñu programme d'éducation nationale. Mhm. amuñu programme d' éducation parce que programme d' éducation nationale képp kuy citoyen da nga ko war a xam xale bu juddoo fan nga ko war a jaarale bu dee la bu dee chrétien la bu fekkee ne du jullit du chrétien ñu yar ko ci aada yi nga xamante ni noonu la doon kii mu nekk loo xamante ni danga koy insérer xale bi déjà ba mu ba mu juddoo fekk yow parents yi ngeen ngeen chinois yi ñoo ñu ëpp foofu ay milliards lañ indiens ëpp foofu ay milliards lañ mais xoola chinois yi tey jii très discipliné mu hmm? ne très discipliné seen discipline lañ rawee àdduna bi yëpp. kon mbir mi du ci jur bi. ci rey bi la. <laughs> <laughs> ci yar bi la. waay waay kaasol dañuy ñu wàññi jur bi. tey jii chinois yi Europe man Covid bi Europe la ma fekk. Mhm. mais tey jii ay France ay Italie ki ay yooyu. Mhm. mais chinois yi ñoo leen ñoo leen mujj ñëw di leen jàppale. Mhm. tu vois tey chinois yi lu leen may loolu mooy que ni seen état. bu génnee bu joxoñee fi état bi joxoon ñëpp fa la jaar. Mm-hmm. ñëpp fa la ñuy jaar parce que ñoom ay modèle démocratie bu ñu yor. Mm-hmm. bokkut ak bu français yi. Mm-hmm. ñun bi ñu imposé bokkut ak bu américain yi. chinois amul fu muy tëj trafiquant de drogue. chinois amul fu muy tëj trafiquant de drogue chinois amul fu muy tëj góor jigéen. ñoom yoo xamante ni c'est nuisible pour la société. ñoom loolu rey lañ ci xam. wax ci jeex mooy peine de mort bi nga doon wax est yaa ngi dégg wax mhm. mais il faut que ñu am programme d'éducation nationale mhm. mais ñoom loolu pour ñu mën ko réussir dañoo am ay njiit yu mhm. pour ñu mën a réussir loolu dañoo am ay njiit yoo xamante ni dañoo jub ah oui ah, parce que ci gars yi <laughs> parce que yow tey jii xam nga ñun benn kii la ñuy wax mais tey jii ñaata jeune ñoo génn euh, dee ci géej gi bari na boobu moo gën a grave. est-ce que est-ce que est-ce que gis mës ngeen dégg état Sénégal ñu ñu def benn def benn benn benn benn kii national quoi benn. day national day national wala rencontre national wala. Mhm. invité boroom xam-xam yi ak kilifa yi ak euh, maanaam ñu def benn concentration pour xool naka la ñuy indee ci loolu pexe. ñu poser question lan moo tax xale yi dem di xaru ci géej gi di dem Europe. est que mës ngeen dégg ñu def ko Sénégal les villages lébu laa léegi amatul góor. Mm-hmm. oui. Hmm? exode moo fi am. Mm-hmm. tu vois da dem léegi ci ci àll bi village yi amatuñ góor. Mm-hmm. Hmm? mais amuñu amuñu amuñu amuñu programme d'éducation national amuñu programme d'éducation nationale boo xamante ne xale ak mag ak góor ak jigéen dañ koy xam bañ nekkee xale mën ko respecter. ñu ko. c'est clair. fii ay gerfraat la ñuy jàng. <laughs> mi ngi noonu eh, leer na voilà Bamba dañuy mm-hmm. rek jàll ci euh, beneen euh, point. Mm-hmm. ci li ñu war a waxtaanee euh, commissaire Keita moom nag ñu wolu woon ko sànq ca dikk ginnaaw nag ay propos yi nga xamante ne ni yëkkati woon na ko sax ñu jàpp ne des na teggi ne jëmale ko ci ki nga xamante ne ni moo di le premier ministre ak le président ba tax na procureur la waxoon rek ngir ñu déglu ko ca dikk waaye ginnaaw bi ñu ko dégloo rek moom bàyyi nañ daal di ñibbi mais tey jii ni euh, monsieur Bassirou Ka est-ce que euh, tey yenn propos yi war nañ ko mën a xaar euh, ci ñenn ci suñu ay ñi nga xamante ne ni ay référence la war a doon ku ci mel ni tey jii commissaire Keita même bu fekkee ne amut lenn loo xamante ne ni mun nañ wax ne ci jamono ji tax na ba ñu téye ko waaye tamit kàddu yi nga xamante ne ni jot na ko génnee. waa xam naa man dégg naa ñu koy wax mais dégluwuma kàddu yi mais. Mhm. damay jàpp ne comme maa ngi koy suivre yenn saa yi lu ay émi kii yi muy def. Euh, il faut que tamit euh, li ci ëpp mooy presse bi. Mhm. Euh, li ci ëpp ñoom it dañu war a jël seeni responsabilité parce que nit ki parce que am na am na presse yoo xam ne waxuma ñëpp. Mhm. mais ñoom ñooy influencer nit ñi ci ay kaddu yu mel noonu. Mhm. parce que nit ki mënoo chaque jour nga xam ne kii bu waxee day wax loo xamante ne day kii te mag la xam nga olof Njaay dafa ne waxu mag ñàkk gëm doy na si mais weddi amu ci yoon mag mën naa wax loo xamante ne gëmuloo wala jàppoo ko. mais mënoo ko weddi parce que mag la. ah est que yegg na ci mag boobu. quand même ba lu mu wax ñu. waaw waaw loolu laay expliqué dama ne. comme nii eh, du ñëpp bu wax jotee du ñëpp ñoo war a wax. Mhm. parce que bu dee da ngay wax wax toj-toj. mais nit ñi waruñu la jox chaque jour ngay wax parce que loolu day indi jàngal keneen koo xam nekkul woon ci loolu influencé ko ci loolu ëllëg moom mu koy def. Mhm. Eh, li ci ëpp njuumte am na. Mhm. Euh, njëggal. ñun sax sànq bi ñuy wax ñu ngi ko doon ñun ñaan loolu nañ ko jéggal mm-hmm. waaw ndax nit day juum def na erreur mais il faut tamit mu xam ñi may waxal tamit ay autorité lañ yàlla moom moo jël nguur maanaam jox ko doole waaye day wax tamit dañ ko war a jox cër lépp lu ñuy wax ñu wadd wax yi nit mën naa politique wax li nga bëgg wax yépp doo offensé ñi nga xamante ne ay njiit lañu même koo àndal politique ne rek sans mu nekk njiitu la waroo ko offensé. Mhm. parce que loolu il faut ñu jàngal ko Sénégalais ñu bàyyi tamit discours yu bëri yoo xamante ne chaque jour Sénégal tey xam kan la ñu gën a invité mooy kii nga xamante bu waxee rek gaa yi nañ dàgg li mu wax dafa garaaw dugal ko TikTok loolu <laughs> ñoo gën a soxla njombe. njombe bu amee ñoom ñoo gën a soxla fekk nag buñ la convoqué di kenn du ñëw. yow ñu lay woo kenn du ñëw kon nit lu muy wax. na sa gars ba wax ko jàppale Basirou sa gars yi waa affaire nañ ñoom jàppale ko. waaw non non du loolu xam nga affaire. <laughs> waaw man fa laa bokk. oui. damay assumer sama responsabilité mais demal ne man du ma wax lu ñaaw. waaw luy rafet dafa yendoo ak nit ñi fanaanoo ak ñoom parce que tey même bu doon tey koo xamante ne bokkoo leen parti bokkoo leen gis-gis mais yàlla boo leen mu nekk nit nga nekk nit kon bul wax ci moom lu ñaaw. Mm-hmm. te commissaire Keita kilifa la. Mm-hmm. papa la. ay doomam tey am na doom yi yoo mm-hmm. xamante ne tey mag nañoo wala tolloog man xam naa njuumte moo am rek mais comme yàlla def na ci ndox bu sedd ñu jéggal ko ëllëg mu jéem a xool rek. ci loolu ba nga xamante ne doon ko defaat daal. Mm-hmm. mais. Bassirou dañ fi gisoon ci nguur mm. président Macky Sall ay nit yi daan def live euh, di yàq lu mel ni xamee li nga xam ne moo di Ousmane Sonko ci fan yi nag am na ñu ci teg loxo ñu bëri ñu ngi acharné wu foog ne sax yaakaar ne nguur gi dafa mm-hmm. nekk ci wàllum fayantoo ak yu ni mel laa aussi nag ko jàngatee. comme ñan ñu doon wax ci. waaw waaw gis nañ ñu ñu am ñu nekk Sénégal. waaw loolu xam nga loolu ku ci mel ni Ahmed Suzanne Camara moom ci kaso gi ba jaxatere sama la génn. di nga kàddu yëkkati woon te aussi ku mel ni Cheikhouna Keita waaw xam nga Eh, Suzanne Camara xaw ma kooku loolu li mu wax moom ku ko wax doo fanaan si kër bu dee waxtaan wax dëgg ca la nit mën ngaa wax li nga bëgg a wax te tey loolu noonu dama gis ne mais ba léegi sax dafa nekk ci ñu ngi mel ñu ñu ñu ngi mel ne ñoo xamante dañoo nekk ci ay campagne quoi ay élection <laughs> di waaj a ñëw soo déggee discours nit yi ak nit yi ni ñu ko